Ah, Bismillah Jam, Hip Hop by Jamagam, Ah, Mr. Ken by Jamagam, Real MCs by Jamagam, Ah, my first. Ah ma veuve. ak li ko wër xew mag hip hop le 23 décembre fan lay amé au CK Ngay à partir de 22h les invités d'honneur Yangam ngi am Pro Bibos MC IG. prévente c'est à 1000 francs jour J 1500 artistes invités King Boss Famusta, Big Ouz Amzis, Pobose From Time, Ibzo for Life Kep ko nga nga information si bëss ba numéro bi ngay composé 78 578 96 67 bés ba Parane, ngi koy parané monsieur le maire de Thiam bu Pire marraine nag euh, Mame a Fati la muy mannequin euh, national ak euh, Ami Collé Sakho bu RDV ñi nga xam ne nag ñoo jàpp si bés yaa ngi am Tadoula production Baro business ak Prince élégance muy Parlement jàpp si bés ba mi ngi noonu le 23 décembre la au Secka de Ngaye donc hip hop la donc képp ku nga xam ni yaa ngi bëggee hip hop teewal ñay def bés ba doomu Ngaye lañ organiser soirée hip hop boobu noonu mi ngi amee si Secka de Ngaye waa dëkk bi la donc artistes yëpp ñi nga xam ne dañuy pressé doomu dëkk bi lañ kon ñoo leen ngeen jàpp si bés bi bi mu yem ñu ñëpp ñu ànd ñu feetandoo le 23 décembre bu ko defee ñu génn si at mi ak jàmm ak salaam. léegi nag yeewi naa leen mën ngeen a dee maa ngi seen ginnaaw waxuma ak seer te ab seer mënuma jëriñoo waaye mënees na ma defar ab seer ba mu doon ku ñu ràññee ci jamono.